salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum waa senegal man Basirou Fatoumata Mame Diop maa ngi jaar ñëpp macha allah ci altine bii nga xam ni dañu xëy di fàttaliku ku baax muy sëriñ Mbacke soxna loo borom Taïf ak Baye laa Cheikh Maguette xarit loo waaye nag ginnaaw bi nu nuyoo sunu xalifa bi jiital ko Serigne Mountakha Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te li mu bëgg liggéeyal maam ji Cheikh Ahmadou Bamba mu defee ko ni mu ko bëggee tey nag. ci première juin bi leen di ñoo ngi fii place su Bass Dia di fàttaliku Serigne Mbacke Soxna Lo borom tey fak bàyyi laa waaye bas Dia mi nga xam ni ku ne xamoon na ko ci Serigne Mbacke Soxna Lo ko portole maanaam photo macha allah mu ko daan yónnee fu bari tegoon ko ci wetam macha allah tey ci place am la ñu euh, ñu ngi lay nuyu Serigne Bass. Bass maa ngi lay ziare bu baax maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi am jàmm bu baax. ñu ngi sant bu baax a waaw ginnaaw bi la nuyoo tey dañu ñëwoon doon def interview ci Serigne Mbacke Soxna sëriñ Mbàkke nag ku ko xam xam ko ci yar civilisé alxuraan lislaam jëmm ko aqiqa jëmu ko kër maamam kenn mosu leen a yab ci dara moomoon maanaa am personnalité macha allah yar ci ay njabootam ñu lay laaj loo xam ci sëñ Mbàkke soxna loo xam neem sax mënoo wax lépp waaye am nga loo ci yor tuuti euh, ñu commencé rek li nga ci xam nga am loo ñu ci waxal tuuti ñu dégg ko. asalaamaaleykum mbokk yi may seetaan. Euh, maa ngi leen di ziare bu baax euh, ziar bi nag maa ngi si jiital sama sang bu baax bi sëriñ Serigne Moustapha Mbacke Mohamed mi nga xam ne tey ji moo fi toog jataayu Serigne Mbacke Soxna Lo ak euh, rakkam yëpp ak magam yi magam soxna Ami Mbacke Mohamed ak i rakkam maa ngi leen di jiital si nuyoo bi bas maa ngi lay fay bu baax di leen ziare bu baax yéen it si taxawaay bu rafet bi ngeen def nga ñëw ba fii di ma laaj si sëñ Mbacke Mohamed. man nag euh, maa ngi tudd Basirou Dia euh, nekkoon taalibe sëñ Mbacke Soxna nekkoon koo xam ne ni man maa ko daan photo parce que fu bari fu ñu daan demit euh, dama daan ànd ak moom di fa dem ba si ay gan bu ñu masaa ñëw foofu di visiter palais beeg yëpp daf may boole ak ñoom parce que ma ma leen defal yooyu buñ bi ngan gi ñu doon def Mauritanie it ñaari ngan yëpp ànd ma ak moom dem fa. mais sëñ Mbacke Soxna mu doon bis boo xam ne nii tey ji ñu koy fàttaliku 1er mu doon bis boo xam bisu naqar la. bis la boo xam ne ni bis bu metti la boo xam ne ni ñun ñi nga xam def ñoo yor duñ ko fàtte mukk mais sëñ Mbàkke mënuñoo wax si moom ndax suñuy wax si moom parce que suñu xol dafay xaw a sori ndax euh, lii mooy première intervenir bu ma mas wax si taxaw di wax si sëñ Mbàkke Soxna Lo ñu ma ciy laaj ma wax ko ndax bu ma si mas na tey la ko suñu borom dogal. macha allah macha allah euh, sama xol man mit fees na ndax sëñ Mbàkke Soxna Lo euh, kuy wax ci moom rek doo bëgg a doyal ndax yar ba ak ni mu meloon ci yoonu lislaam macha allah ak li mu ci liggéey ak li mu ci def maanaam Serigne Mbacké Soxna dama daan dégg ñu ni nit sax day ñëw ci moom mu yor daamar gu bees mu nga xam ne da ko waroon a yittewoo wala da ko waroon a fab jox ko njabootam da koy jël ka ko yittewoo ñëw ci bis bi tàng-tàng bi lay jël jox ko loola ni ko am moom daal di toog deseeg yàlla maanaam loolu dama daan déggit lu bari ñu koy wax ci Serigne Mbacké Soxna Lo def yu mel noonu ak di dimbali néew doole ak bàyyi ak jirim yi loolu Euh, yow mi nga xam ni yaa daa ko daan jege loo ci mën a wax loo nu ci man a wax. waaw sëñ Mbacke moom képp ku ko xam xam ko si dimbali doomu aadama moom moo ko tax a jóg ndax euh, benn bis mas sama ma mas nañu toog muy waxtaan ak man fekk boobu euh, benn chute boo xam ne ni benn journal moo ñëw bind ko benn bind ci moom benn ne sëñ Mbacke multi multimilliardaire la. mu wax ma ne ma man de ah, man de bas ñi di ma bind mel ne multimilliardaire la waaye man de aw ma compte banque ndax man jomb na ma nit ñëw ne am wax ma soxla maanaam ko tey la samedi wala tey la dimanche wala tey feet la bàyyil ba ëllëg sama xaalis amul jotul dem dem si banque bi kon kooku nu muy nekk milliardaire waaye nag am naa suñ borom te suñ borom xaju si banque sëñ bi wax na lii beneen ci mooy sëñ bi ku ku alal alalam boole mosu ko boole kenn ndax suñ la waxee ne sëñ Mbàkke ni meloon te daan dem ba kër ga oto bu ñu war du am si kër gi am na bis boo xam ne nii oto bu ñu war amu fa man maa jël sama oto bi ma yoroon BM bi ma yoroon mu ne ma bas ana sa oto mu ngi fi ma ne ko waaw mu ne ma jël ma nga yóbbu ma ma am ma yóbbu ko sànce indiwaat ko kon kooku soo man preuve yooyu noonu man am naa ci lu leer ndax man si sa boppam def naa loolu si ak moom euh, murtani dem nañ fa mu ñu ànd dem Mourtani si ngànnu Mourtani gi mu doon nit koo xam ne nii nit ko am maanaa la ndax li tax nga ne nit ku am maanaa la mooy premier jour mooy hôtel bi ñu dal ñi ngi dal noo hôtel hôtel bi ñu dal ay ministres yi ak yeneen autorité yi ak yeneen présidents yëpp suñu ñëwee foofu la ñuy dal mais sëñ Mbacke bi ñu xamee ne naar yi xamee ne sëñ Mbacke son la wàcc si na si dëkk bi fu naar nekkoon rek da nga daw ñëw di di ñëw si sëñ di ko saafonteeg moom ngir di ko di ko saafonteeg moom di bëgg mu dimbali la si lim yor. foofu mujj maire fees dell fu nit ñi nekk nit ñi moo directeur hôtel bi dafa mujj ñëw sëñ bi ne ko yow de fii moom wax dëgg yàlla ndax nangam ak nangam nit ñi fii nga xam sëñ bi dafa mujj ne man fu ma nekk doomu aadama yi fekk ma fa kon kooku nit njariñu neen la ci la ñu jógee hôtel bi ñu nekkoon ñu dem sëñ bi dal si beneen otel boo xam ne spécial fa lañu dal nga xam moom moo mujj jël lépp nga xam ne moom rek moo ko occupé kon nga xam ne kooku dimbali doomu aadama yi ko fi bàyyi woon dimbali doomu aadama yi rek moo ko moom la fi nekkee woon macha allah bas waaw loolu leer lool mais mu man ni nag euh, sëñ Bàkki Soxna Lo daan na daan la woo ba nga ñëw mu lay yónni fu bari euh, nga fay dem loolu euh, macha allah yëg la te bàyyi xel la waaye sab yar ak macha allah sa dëkk Daara Xudoos ak sa gëm leen moo waraloon loolu nga mel ko ci sëñ Bàkki Soxna Lo borom tey fag bay laa ma dégg ñu ni daan na la woo di la yónni fu bari ci ay jumtukaay yoo koy doxali. waaw xam nga sëñ Bàkke fi mu wute woon ak euh, kilifa yu bari si benn côté mooy euh, ñi ko waroon ñi si ëpp ay xale lañu woon muy ñi nekk ci kër ga parce que daanaka kenn ñi fa nekkoon ñépp euh, kenn làqu si woon daanaka ñaar fukki wala boog ci lay yem ñun ko nga xam ne nii ñoom la ëppoon ci lu muy di di kër ga di la sant dara ngay def naa nga makki naa nga bëkk néeg ya fa ne ay xale lañ kon nga xam ne sëñ Mbàkke yàgg na jaxasoo yàgg nañu yàgg na jaxasoog ay nit mais yàgg naa jaxasoog ay xale yoo xam ne nii moom moo leen jëlal boppam tàggata leen boppam yaral leen leen euh, ba si yónneen yooyu noonu lu lu am la ndax euh, ba si yónni na ma bi ko Youssou Ndour waaye euh, yónni na ma ma di dem kër Youssou nduur yóbbul ko benn foto boo xam ne nii photo bu mag la moom jëmmi boppam la ma yët ko Youssou nduur parce que ay 1 mètre 50 la ko ma 2 mètres ma yët ko Youssou Ndour boobu ma maa ngi ànd ak ku ñuy wax Faasa Mbay ak euh, Mor Dioum moo ñu doon dawalal ak ku ñuy wax di jaañ mi ngi États-Unis léegi euh, bi ñu egsee Youssou Ndour moo ñu buntu kër gi ma egsi bi ñu egsee ñu jox ko photo bi ma ne war nga góorgóorlu bu baax de ndax lii la sëñ bi defal ni doon lu ndaw euh, moo ñu ubbil buntu bi nuyoo la ñoo ay soxna soxnaam bi am si mbégte lool beneen bi si des mooy Ousmane Ngom mi nekk tey ji mu nekkoon ministre de l'intérieur am na fu bari fu mu jaar ak sëñ Mbàkke ba mënu si ko wax ndax mu Ousmane tudde na sëñ Mbàkke soxna loo sax doom sëñ Mbàkke yëkkati teraanga yu bari defal ko ba si ñu bari ñoo xam ne ni mënu si ko wax ay ñoom bay Baye wan directeur LONASE ba si ki nga xam ne tey ji moo nekk njiitu réew mi ndax ci télé laay waxee looy wax lu ne da koy wax seq nag moom ay teraanga yu bari yoo xam ne nii man am na lu bari lu ma si xam loo xam ne nii eh, daanaka am na yoo xam ne mënuñu ko wax sax ci télé mais sëñ Mbàkke daal yàlla ñu ko suñ borom fayal te nit ku amoon personnalité la nit ku laabir la nit koo xam ne nii ku complète la sooy wër nit koo xam ne nii sans défaut mooy sëñ Mbàkke Soxna Lo nit la ku laabir ku parce que samedi de dimanche bu ma saa jot Taïf dafay mel ni conseil des ministres parce que vérité société yi ministres yi tout le temps dañuy ñëw te suñu ñëwee sëñ Mbàkke mooy yëkkati alalam di leen ko jox kon nga xam ne kooku ku amoon personnalité la kooku ku amoon maanaa la euh, Mauritanie bu ñu fa bu ñu mës a dem nganu Mauritanie gi naar yi di ngay yaakaar ne sëñ bi maanaam kii naar yi ñu mel ne ku koy waaj euh, far maanaam maanaam duñ ko gëmee nga xam ne ni invitation yi dem sëñ bi day yëkkati xaalis da koy maanaam xaalis day maye ba nga naan sëñ bi kii fan lay fan la jëlee lii ngir dimbali doomu aadama yi mu doonoon nit ku bari yërmande nit ko am maanaa ba lim gënoon a bañ si àddina mooy nit ku doomu aadama ndax man mas na ma toog benn bis mu woolu ma ne ma yow ak Fass da ngeen ànd ngeen dem Kaffrine muy benn xaritu boo xam ne nii pël la woon moom du xaritam sax dafa daan ñëw ci taayif si sëñ bi sëñ bi nit ku kuy xeeb doomu aadama yooyu la bañ mu ne dafay ngénte na ngeen dem ngeen filmeel ko fotol ko te lu mu soxla lépp ngeen defal ko ko te su ngeen paree ngeen doog a ñibbisi fekk yeewu leen bu leen ñibbisi daal di jël oto oto boppam bi nga xam moom lay war muy kadiyaag bi muy war mu yebal si bas ak sëñ Cheikh Mbacke doomam yebal si euh, savooram ak xaalis bu bari ñu dem ñu dem ngénte ji kooku noonu kooku noonu mu ngénte foofu noonu ngénte lu rëy nga xam ne kon si jamono jii ñu nekk nii muy euh, muy social dimbali doomu aadama nit ñi war nañoo mën a roy si sañ Mbacke soxna loo ni mu ko doon defee. si yu bari yu ma xam yoo xam ne nit ñu bari ñoo xam ne moo leen may kër may leen dëkk waaye même Mourtani boo fa demee da ngay gis magasin bi ñu la ko tabaxal moo ko sargel nga gis kër ga la ñu ne sëñ Mbàkke moo ko tabaxal kii nga gis nit kii ñu la sëñ Mbàkke moo ko jël faj ko kon nga xam ne kooku suñ borom ay mbiram yemutoon rek biir Sénégal dafa génnoon bitim réew yàlla nañu ko suñ borom fayal. waaw Bas mel ne suñ toppee mbir mi sa xol dina feste Serigne Mbàkke moom loo wax ci moom rek doyul boroom tey fak bay laa kàddu yi leer nañ macha allah ndax euh, sëñ Mbacke Soxna loo li nga ci wax moom lépp nga wax waaye mënees mënees na koo dégg macha allah mu am la tegoon macha allah moo tax ma ne woon tey dinaa ñëw ba ci yow euh, bas jam bu baax mi macha allah ku ko xam xam ko ci sëñ bàkki Soxna loo ak Serigne Ngagne sëriñam bu baax boobu. kon ñu ngi lay ñaanal jàmm yàlla defal la jàmm ak tawféex li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko Serigne Bamba defal ak sëriñ ngañ ak Serigne Mbacke Soxna Lo kon wasalaamualeykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu sama sëriñ bu baax bi nag moo sëriñ Modou Abdoulaye mu sëriñ Sousa Basirou di ñaanal sëriñ Mountakha jàmm di ñaanal ñëpp jàmm jëriñ ngeen jëf